ñu ñëw ci soble si daaw soble jar na lu ne mhm. Sénégal nag bu soble jar jaree lu nekk bu déwén saa ñëppay bay soble dëgg la hmm, d'accord Sénégal fépp bañ nañ soble waaw daaw ci heure bi mu ngi nekkoon à vingt cinq mille voilà daaw man maa fi daan jooy soble <laughs> ren dafa ñu comparaison ren ren boo amee six mille francs caarooy am si mille waaw cinq mille six mille soble parce que ñëpp a bay soble parce que ñëpp a bay soble la la demande est l'offre est supérieure à la demande. tey jii camion du dem. Mm-hmm. jóge ko fii ne mu ngay dem ba Kaolack. ok ndax Kaolack bay lañ. ndax Kaolack bay lañ. ah oui. Missirah Mbattu sax bay na. Hmm? Toubacouta. ah oui dañ jàppoon ne <laughs> comme bi neex na quoi. <laughs> ñi nga xam ne ñoo ko indiwoon woon du ma tudd seen tur. vingt cinq mille yeeg kurti kurti yi fu mu ne ñu ngi woon nit ñi. naan leen dimbale leen ñu ñëw. ngeen léegi nag le problème qui va se poser. Mm. est dommage que ça nous rattrape chaque année. mooy les infrastructures de stockage il faudrait qu'on en parle. day yàq waat dañ koy gasaat suul rek. on ne peut pas atteindre l'autosuffisance alimentaire sans qu'il y ait une bonne régulation par les infrastructures de stockage. Hmm. tout à fait. l'exemple de Baïsédo est là. Hmm. Baïsédo c'est un Sénégalais pur-sang. Sall la sant nag mais bokkul ak Macky Sall dara am na ci expérience bi yàgg naa dugg pour les financement ba nga xam ne fi ne CDC. Mhm. rek rek rek rek bu ci gaawoon baral loxoom rek il peut nous installer un tonnage important ba nga xam ne ci soble seeg pompiteer bi dana ci mën a suppléer indien bi ba nga xam ne per parce que loolu privé moo ko war def état warul def. infrastructure privé moo ko war def.